sàll bi macha allah euh, di chéri Khadija soxna Khadija ñu koy kontaane bu baax a baax euh, di ko di am mbégte encore une fois euh, ñëwa ci rek ànd ak moom dama koy jaajëfal bu baax jaajëfal soxna nag Binta Laay Laay Maxtaar kontaan si moom Alioune Badara ni nga ko waxee rek noonu la te comme koy ko defee tous les soirs rek fii si kër gi la maison Sen Teranga muy rek li nga xam mooy chaîne bu mag bi Euh, bi bi xew si jamono. Mhm. voilà dëgg neexul. waaw tey tamit ñu am tamit invité de marque invité de taille également il est très bien habillé ce soir. macha allah waaw tey moom. Mhm. vraiment euh, war ni kenn tënk ko. Mhm. Euh, si si si si wàllum colin maanaam wàllum habillement et c'est important. voilà kon nag ba bàyyi la rek nga daal di ko dalal. gannaaw bu ñu la jaajëfale bu baax a baax a baax. merci di Didier contentement la um, saa su nekk jàkkaarloo yow di pelloog émission teranga yi koor noonu laa koy defee rek di nuyu alin Badara bàyyu Bamba Chéri Mame Diarra nuyu Bintalaay ma dem Diallo di nuyu bu baax a baax uh, oustaz Magning oustaz uh, de la jeunesse 2.0 Chéri Khadija maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu tamit suñu invité wax nga ko léegi euh, abima bi macha allah ah nee nga kenn tënku ko macha allah lii nag suñu ustaas yeeg suñu maam yi war nañ cee xool bu baax a baax a baax dañuy bàyyi garaam bu yi <laughs> rëy yi tooñ ma kenn nag dañuy <laughs> waxtaan rek ma ñu muy muy imaam Dramé lañ dalal tey ci émission terangay koor euh, di amaat contentement ak mbégte ci disponibilité bi tamit imam ziar nañ la nuyu nañ la bu baax a baax. waa salaamualeykum wa rahmatullah ma maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi ñu bokkal jotaay bi commencé sama droite ndeyjoor di jëm maxu ah, ci kontaan ci fekk ko fi parce que moom yàgg nañu daje ci plateau yi waaw ah, petit déj ah. kon ñu ngi koy nuyu bu baax waaw di nuyu sama frère bële Aline Badara alin Badara. nga xam ni moom it yàgg na ko yàgg naa di ko suivre ci média bi ak soxna si nga xam ni mooy. bint Laay Binta Laay ah Maxtaar. maa ngi koy nuyu <laughs> ak sunu ustaas Bële. Mbajik Mbay. Mbajik Mbay ah. <laughs> moom maa ngi koy nuyu sama mbokku daara la. di nuyu sunu jigéen bi. soxna Bilia. soxna Bilia waaw ah, moom de dafa mel ni. sañse na de yaa ngi wax sama bos mais yow. waaw vraiment yaa ma ah. <laughs> gis na gis naa verte zone rouge bi ah. <laughs> ci ci ci ci fête d'indépendance bi. waaye bu ma leen nuyoo ba pare nag ma nuyu sénégalais yi ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew yëpp ah di nuyu patriotes yi ah surtout ñu nekk ci jaspora bi nga xam ne ñoom dañuy li naan picc picc nga ci kaw. ma xel maa ngi si suuf. waaw di nuyu vraiment nag waa Modap parce que ñooñu. man la yàlla nattoo ma yor seen kàddu. macha allah des doomu daara patriote. macha allah maa ngi nuyu doomu daara yëpp. di wax ni ñu ngi baalu àq tamit ñëpp ci weer wi. waaw càdd wi. weer wi nga xam ni moom weer bu am solo la. ci diine. parce que nit ku yàlla nattu ngay taxaw di wax ci kanami caméra. Mhm. léeg-léeg baax na nga baalu àq nit ñi. dëgg la parce que wax moom dafa metti léeg-léeg nga wax loo xam ni da ngay touché nit. te doo ci sax bàyyi xel dëgg la kon ñu ngi ci profité di baalu ak sénégalais yëpp di wax ni air bii di upp Sénégal daal mm-hmm. nuru na ni airu rupture la yàlla nañ ci yàlla dimbali ba ñu ba Sénégal yëpp gis ci seen bopp waaw di nuyu kilifa diine yi nag xam naa dina ñëw ci sunu frère man mu nekkoon sama wëllëre di l'ancien premier ministre Boun Abdallah Dionne ñu rendre ko hommage ñaanal ko yàlla fa mu jëm yàlla na ko yàlla teeru yàlla na dajeeg yaakaaram di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul parce que man xamoon naa ko amoon naa chance daan échanger ak moom li ma gën a marqué ci moom bi ma ko mujjee gis matul matul deux mois parce que avant les élections noonu bi ñuy préparer candidature yi dama ànd ak ak Arona Coumba Ndoffène maa ngi ko koy jaale moom ñu dem fa ndeysaan seeti ko maa ngi ko fekk nii ci salon mais bi ma duggsee ci salon bi ma gis fa benn aliwo aliwo boo xam ne nañ ci bind alam nashrah mais niñ ko defaree nag dafa rafet maanaam genre aar la daal ma koy tooñ ma ne ko mais PM sa aliwo bi est-ce que du ma ko yóbbaale <laughs> ci biir waxtaan ndeysaan ñuy waxtaan ba agsi ci système système munuma man daal imam man gëmuma benn système gëmuma benn lobby mais man système u Serigne Touba laa gëm loolu moom bi ma ko waxee vraiment man ma jàngat ci lu bëree bari kon Boun Abdallah moom waxuma li mu liggéeyal Sénégal parce que nekk premier ministre pendant des années nekk cadre au niveau waaye mën nañoo seede ni taalibi Serigne Touba la woon kon nag tey réew mi yëpp a ko ñàkk ñu ngi koy jaale fameem di ko jaale tamit le président de la république son excellence wala monsieur Macky Sall ak mbooleem ñi mu àndaloon ay collaborateur am di ko jaale réew mi yëpp parce que moom réew mi yëpp la bokkal di ko jaale waa Gossas vraiment perte bu rëy la pour Sénégal loolu daal xam naa ni mën nañ ko mën nañ faa tàmbalee bu ko defee ñu bàyyi waxtaan wi mu ubbeeku ñu fas yéene nag dugg ci réew mi doon tey gan euh, si émission mag bi nag teraangay koor dama koy nuyu Alioune Badara maa ngi lay jaajëfal micro bi sawet la nekk ma njëkk yow euh, di la bàyyi rek nga nuyu ñi nga xam ni ñoo lay topp. waa di la nuyu bu baax DJ maxu di nuyu itam ñi ñuy seetaan partout dans le monde entier euh, ñi nekk ci diaspora bi surtout ñu ngi leen di nuyu nuyu suñu yaay ju baax jooju di maman Awa Mboup ak ki nga xam ne moom moo di Soxna Ami Ndiaye ca Colorado ak euh, mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi foofu di nuyu imam euh, Dramé aussi di ko xam ne euh, xamante nañ bu baax a baax a baax yàlla may ko ci liggéey bi nga xam ne ci la nekk ci wàllu xeex ci lépp lu jëm rek ci wàllu dëkk bi ak ni ngeen gisee woon gars yi ni doon xeexe donc tey yàlla may leen ndam ba ñu gagné seen combat boobule ñu ngi leen di félicité bu baax di ko nuyu di nuyu aussi Belia di nuyu madame Diallo Binta Laye Gueye waaye aussi di nuyu oustaz Mbagnick borom xam-xam bu sell bi comme li nga wax wax dëgg yàlla ki nga xam ne mu ngi niital ñu bare bari nag à travers euh, yu yu am solo yi muy def fii ak euh, émission bu mag boobu di Faire Idji na ko Sénégal yëpp bàyyi xel nag di ko seetaan parce que c'est important euh, nit ki lay jàngal doo déplacé wu fi nga toog doo fay dara gratuitement loolu lu am solo la DJ maa ngi lay gërëm bu baax. baax a baax ni ko waxee noonu moom diaspora bi ñoo ko gën a sox soxla ñi nga xam ni xëy na. Euh, seen àlliw euh, maanaam maanaam feruñu ijj euh, seen àlliw mat mattewul ñu nekk si ay zones yu gën a reculé amuñu imam wala oustaz bu leen jege fer ji dafay baax lool ñu jàppale leen si ba nga xam ni buñ xasee ba fer nag téléphone yaa ngi fi fu waay mën a nekk mën nga jàng alquranul karim fu waay mën a nekk man nga tamit nafar pour mën a xam sa diine dafa am solo Binta Laay Laay Maxtaar na nga def madame Diallo ah Binta Laay Guèye bëgg ceeb. voilà tey tey foofu nga génn foofu laa di jëmaxu yow xam nga gaa yi xam nañ ni yow yaay sekkeen bi. fii moom bu fekkente ni lekk rek. fa yàlla.